loolu aussi euh, université bi ñu tëjoon ko kon ba tey jii nii mi ngi toll ci 4 mois 23 jours durant yoo xam ne université Cheikh Anta Diop dañ ko tëj mais depuis bi ñu ko tëjee ba léegi ñun ñu ngi ciy dox di ci wax ak ñu ngi ci war a waxal parce que ci suñu gis mooy palaasu étudiant bi mooy mu dem ci université bi dem jàngi ci njëlbeen gi ñoom dañoo dogaloon li ñuy wax des cours en ligne ñoo xam ne cours en ligne yooyu noonu jàllul ñu jóge ci di wax des cours en distance des cours en distance cours en distance yooyu noonu ñun ñu dem ba ci biir ñu am ci benn protocole d'accord boo xam ne dañ koo tënk ak kilifa yi jiite université bi ñu tënkee protocole d'accord boobu noonu ñu waxtaanee li ñu naan mise à disposition des ressources ak remédiation mais aussi teg en place des mesures yoo xam ne dañuy permettre li xewoon université dootu fa xewaat ñu ànd ci loolu di ci waxtaan mais ci loolu dañoo xam ni remédiation li ñuy woowee remédiation dañ ko war a def en présentiel ñu nit ñu tënku ci loolu jàpp ni buñ demee jox étudiants yi cours ci gox goxaat yi ñu wër Sénégal yëpp tas ñun les représentants d'étudiants yóbbu ay clé USB ak ay polycopier joteel étudiants yi nga xam ne amuñoon ci cours yi ñu jox leen ko pour ñu mën a lire sukkandiku ci loolu bu ñëwee professeurs yi defal leen explication yi ci li ñuy woowee remédiation ñuy dox ci loolu di dem conseil d'administration au euh, conseil académique am. Mm-hmm. bi conseil académique bi amee ñu décider ne nañu tijji université dans de meilleurs délais c'est le terme qui a été bu weesoo loolu aussi tamit ñu digal doyen yi ak directeurs yi ñu dem waxtaan ak ñi jiite étudiants yi parce que mën nañoo tijji campus pédagogique bi mais campus social bi mënagul a tijji parce que daa am ay liggéey yu ci def ñu ne bi ñu xoolee loolu noonu yëpp ñu am ci lu ñu d'accord ñenn ñi nga xam ne suñu doyen ak suñu directeur bi ñu saisiré parce que ñun suñu gis-gis mooy sauver année bi moo gën ñu toog di xaar. année bi invalide wala année bi blanche. mais sauver année bi aussi ci yan condition est-ce social bi pare na est-ce que meloon na mu meloon condition yi est-ce que lépp c'est réuni pour que ngeen mën a reprendre les cours waaw loolu tamit beneen débat la boo xam ne dañ ko posé woon ci li ñuy woowee le conseil d'administration bi nga xam ne te am na le vendredi passé muy vendredi le 20 parce que ñun boo xoolee ñun étudiants yi defaraat université bi dafa nekk lu ñu yitteel moo tax depuis le 17 juin juillet du mois ñi ngi topp ci ginnaaw autorités yi jox ay mesures yoo xam ne dañ ko war a appliquer mais ñu ñëw toog waxtaanee xool naka la ñuy defaree université bi mais li ñu mënul comprendre mooy boobu ba léegi ñu ñuy lu dégluwuñu ba conseil académique bi décidé ni war nañoo mën a tijji. ñu ñëw di laajaat un délai minimum maanaam lu mu néew néew soxla nañ 60 jours pour mën a teg metre en place des mesures wala defar yeneen ci biir université bi maanaam 4 mois 23 jours yooyu noonu yëpp lu tax jéemu ñëw ñëw wuyu si suñu appel ñëw ñu àndandoo ñu defar université bi mesures yi ñu war a jël ñu jël ko parce que ñoom mesures yi ñuy wax yëpp étudiants yi ko proposé muy directeur du COUD muy recteur lépp loo xam ne wax nañ ko ci ay mesures étudiants yi ñoo ko bind jox leen ko ne nii lañ bëgg ñu doxalee université bi